Euh, wax leen nan dem xaar seen leader ban ñëw ñu def ak ñoom caravane mais dafa mel ne gars yi dañoo déterminé wu fi mu ne nii nag euh, xeer yi mi ngi commencé nag euh, wàcc jëm ci ñi nga xam ñoom ñooy takk der ñu ngi leen gis noonu nag ñi ngi dox jëm seen kanam li nga xam moom mooy char bi nga xam moom moo yore ndox mu tàng bi nag mi ngi noonu topp seen gannaaw parce que léegi rek boo moytu danañ chargé seen kaw te bu ñu chargé nag seen kaw lacrymogène moom moo ci lacrymogène yi nag moom moo ci daal di tegu léegi bu ngeen moytul gis ngeen xeer yi Euh, mi ngi new nag euh, daal di fas yéene euh, jolli nag ca parti parce que dañ leen a waxoon sànq ne leen mën ngeen a dem xaar seen leader bi ba mu ñëw rek ngeen mën a ànd ak. moom bunge ko ci li nga xam moom mooy caravane bi maa ngi seen sama naataango Pape Balla mi ngi daw xeer yi mi ngi daw xeer yi nag Pape bu RFM mi ngi daw xeer yi gis na nag fi ne nii oto bii nag moom moo def ndox mu tàng moom mooy topp ci gannaaw gaa yi parce que sànq bi ñu ñëwee rek Euh, commandant Sonko doon na leen wax ñu dem rek xaar seen leader fële nga xam ne moom mooy ci euh, route nationale bi bu ko defee ñëw waaye ñoom dañoo dëgër bopp donc gis nga ni mu fas yéene nag euh, boo moytu danoon chargé nag parce que sànq da wax ne gunge leen rek ngeen écarté leen ba ñu jóge fii yëpp ñu topp rek ñu fàttali ne loolu nag mi ngi xew fii ci boulevard bu Ndoyeen boulevard bu Ndoyeen nag ci suba ñi ki biig sax la fi takk der yi ñëwoon boobu ba léegi kon rek gis ngeen xeer yi nag. Euh, xeer yi nag moom euh, jeexagut xeer yi nag jeexagut kon nekk euh, yéen a leen seen noonu gis nga ñi ngay chargé boo moytut boo moytut ñi ngi chargé nag foofu nga xam ne moom mooy ci kaw nit ñi nekk ci biir mbedd yi gis ngeen liñ leen doon wax kon tàmbali nan chargé yi wax naa leen ko sànq ne foofu rek lañ jëm si woon ak yéen gis ngeen nag renfort beneen renfort ma nga nee di ñëw ak ñi nga xam ne ñoo ñoom ñooy takk der yi Euh, beneen renfort mi ngi nee di ñëw te nag fi ñuy duggee nag moom mooy gën a graaw parce que xeer yi daf daf mel ne ci kaw lay jugee ah, ñu motandu ko rek gis ngeen foofu yëpp gis ngeen gis ngeen nag ah, nii rek la ñu fas yéene ànd ak ñoom nag ah, ba ñu ba tasaaral leen génn leen fii nga xam moom mooy boulevard bi complètement génn leen boulevard bi complètement gis na am na ñu nekk ci mbedd mais am na ñu nekk ci mbedd mi tamit dégg ngeen charge yi ba léegi ñu ngi doon di charger seen kaw ngeen ngeen euh,